mooy ay euh, citoyenneté mooy ay euh, euh, kii planter ay arbre ay saxal ay garab bu ay ay ay set setal ay fexe ba nit ñi amaat li nga xamante ni moom mooy amour de la patrie nit ñi gëm li nga xamante ni mooy réew mi ñenn ñi nga xamante ni dem nañ ba seen yaakaar dafa dafa dafa jeex complètement ci réew mi ñoo ñu dekkil si ñoom yaakaar ñu xam ni war nañu mën a nekk ci réew mi di liggéey tekki ci réew mi te loolu yaakaar naa ni lu ama ama ama am solo la te war nañ ko mën a dekkilaat bu baax a baax ci ndaw yi ba dootuñu gisati benn benn benn ndaw dootuñu gisati benn ndaw muy dugg ci ay gaal di dem parce que loolu du lu gën du lu gën mën na comprendre naa leen parce que pour nga mën a comprendre ndaw yooyu di dugg ci gaal yi il faut nga dund même situation yi ko ñoom man mii màggee Colobane baay laay xam naa bu baax a baax baax lan la xale yooyu di dund am na fooy toll. da nga dul en fait ku lay naan sax dalay jéem a rational euh, bon <laughs> maanaam rationalisé ku lay jéem a kooku da ngay jàpp ni nga kii dafa dof yow ki lay naan sax non see que cest taxawal yow danga koy déglu rek parce que da nga koy déglu mais bu paree da ngay dem def li ngay def parce que yow jàppoon que ni euh, li muy wax ni solution la mais ñooñu nag il va falloir que ñu gën a fexe ñu nu ñu toogee ci réew mi ñu tabax réew mi réew mi bu doon sagoo Macky Sall ak ñi mu àndal mooy lépp li fii ndaw. dinañ génn réew mi soit bu ñuy demee ci euh, géej gi ñu si mën a réussir réussir ñu si mën a dee dee seen yoon new ci parce que ñu ngi fàttaliku déggoon nañ fii euh, temps yi naan plus de cinq cent personnes ñàkk nañ seen bakkan ba ñu fiy réclamer euh, deuil national ba ñu opposé pat pataaral bi lan nañ si tegal nekk ñu fi di compter ay moor donc ñoom mille ak dix mille ak quinze mille ak cent mille ñoo ñoo ñoo yem si ñoom parce que nekkuñu fi di compter di compter ay morts alors ñooñu noonu tey amuñu empathie amuñu benn sens de responsabilité bu ñu tax nag ba benn ndaw di yaakaar ni parce que situation bi fi nekkoon métti na tar na que situation boobu dafay continuer di wéy situation boobu man gëm naa ni dafay dafay dafay dafay changer te ñun ñëpp ñoo ko mën a changer ndoo du Ousmane Sonko du du du le président Bassirou jomay Diakhar Faye du kenn ku nekk sa bopp yow yaay fexe nii man maay changement bi changement bi ñu voté ku nekk da nga koy prolonger. si sa bopp da ngay ni man de man maay le prolongement de vote bi nga xamante ni def naa ko du yam kase dem naa ci urne bi voté pour changement am mais si sama comportement de tous les jours damay fexe ba changement bi am damay fexe ba li nga xamante ni euh, li ma ci nekk euh, ci li may yëngu par exemple dam siy fexe ba wane ci xarañte gëm réew mi di investir ci réew mi ñeneen ñi lay jéem a découragé ak yooyu nga bañ leen déglu toog ci réew mi liggéey réew mi te nga teg na si jub ak jubal ak jubanti loolu moom buñ ko tegee Euh, wax dëgg yàlla man je pense que nii li ñu yaakaar ak bëgg ko dinañ ko dinañ ko am le reste nag réseaux sociaux yi ne fi di wax ak di def yenn affaires yi loolu man je pense que ni euh, Ousmane sonk la dernière fois wax na ko ba mu demee ba mu demee Grand Théâtre te avant loolu aussi waxoon na fi euh, ñii di saaga bokkuñu si ñoom bokkuñu si moom wax na wax na wax na wax na wax na période élection yi wala avant élection yi daf leen waxoon ngeen focus donc am na yenn yoo xamante ni nit ñi ñoo ko war a bañal seen bopp nit ñi ñoo war a bañal seen bopp yenn yi réew buñ ko bëggee tabax du xoolal bant bu wadd ñu toog ci bant ba bant bi wadd na wadd na la moo tax bant bi wadd lu ne ñu dem jéem jéem ci wut ay explication toog di débatre plus de quarante-huit ci benn limogeage limogé nañ benn benn DG la dañu fa maa ngi koy wax ñu may naan non non non li ngay wax ni xaw ma lan ak lan ak lan mais ki am sañ-sañu nome ba muy nommé tàgguwul kenn parce que amul kenn ku mu rendre compte moom mooy rendre compte ci gestion am de façon globale bu paree ci mandat mais kooku bu nuwee man mi jël sama yaakaar teg ko ci Pape bu demee deux jours wala trois jours gis ni kat li mu yaakaaroon ci Pape gisu ko mais bu ko fa jëlee information la est-ce que jar na commenter est-ce que jar na ñuy naan non non non non ki mu fa jëlee baax na ak baaxul non jaru ko jaru ko ku fa jëlee def na lii def na laa jënd na fi lii te li ñuy wax yëpp amul kenn ku la ci mën a indi ay firnde kenn mais malheureusement. Sénégal léegi dañu am euh, voilà euh, une deux trois révélation damay xam lii damay def lii damay def la te yàlla xam na ni ñi am information doo leen dégg ñu toog na nañ def révélation parce que loolu du du noonu quoi du noonu du noonu te vraiment il faut que nit ñi ñu gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a euh, lu mu tudd sax gën a moytu euh, titre yi ñu leen di teg ak yenn affaire yi ñu leen di piéger pour ay vues ak ay like yor naa site internet yor naa page YouTube xam naa nu xale yi di titrer ba man ak keneen na ci bokk yam bu ma gisee yenn titres yi damay xam ni que lii moom ay putaclic la dañ koy def tout simplement pour ay clic ay les révélations de diw lan lay révéler lan lay révéler aucune révélation te xoolal euh, les révélations mooy pratiquement titre euh, site internet YouTube yëpp Walf TV bii xam Walf net bii suñu paree kii lu mu tudd euh, Moustapha Niass une deux trois les révélations de diw les révélations les pertinentes analyses les lii lee la parce que tout simplement dañuy wut ay titres yu accrocheur mais nit ñi nat ñoo war a xool lan la ñuy consommer tey kii li may jox est-ce que am na valeur informative est-ce que soxla naa boobu la information ma xam ni par exemple Pape dafa dëng ak dëngul ban njëriñ la may amal bu nekkee Pape Makhtar ki ko fa taggoon euh, du moins ki ko fa tabboon xam na ni dëngu dafa dëng ba jëlee ko fa. léegi yow boo wëlbatikoo di naan pamanda dafa dëng ban njëriñ la am ban njëriñ la am ki nga jëloon jëlee na ko fa li munoon tax ñiy toog di wax ci kooku mooy dénk nañ ko responsabilité mais responsabilité bu ñu ko teggee ci moom looy waxati ci kooku faute de gestion nga mën a wax ci kooku nit jamono yi ñu ko dénk de luubal na lii ñu ne ah attention na yoon def liggéeyam. te nu mu valable ci ay nomination noonu la valable ci yenn débat yi man j'ai pas compris débat bi ñu fi indi bëgg ko bëgg ko euh, def débat entre euh, lu mu tudd euh, l'église ak le gouvernement man j'ai j'ai pas compris Ousmane Sonko ba muy wax kàddu yeeg léegi bu ma jumul def na cinq jours je sais plus exactement ci jour bi dégguma ci coow le lendemain dégguma ci coow ba samedi xaw ma dimanche laa commencé dégg ñii naan li kii wax na lii tontu nañu fii lii non te bu ñuy fàttaliku mbir yi dafa jar ñu koy contextualiser problème bu fi amoon nekkul woon ay affaire de église problème bu fi amoon c'était plus par rapport ak l'État français que par rapport ak l'église parce que li ñu doon wax benn école la concerné woon école boo xamante ni dafay jàngale programme français école boobu ni réglement intérieur am dafay yem réglement intérieur dëkkam France gouvernant ñi fi nekkoon ñu ni ko loolu mënta ne ane boobu dañ bàyyi woon mu sedd mais xaw ma beneen année bi la moo ci topp depuis 2019 léegi moom Ousmane Sonko bu reveniraat sur ce problème ñu bëgg ko def entre affaire de religieux affaire de religion non je désolé école français nasaraanu tubaab ñu ñëw biir Sénégal di ñu imposer seen i gis-gis loolu la Ousmane Sonko ni loolu kenn du ko accepter waxul benn religion donc jarul nit ñi di jéem a wut ay raccourci ak di jéem a créer ay amalgam ak di jéema a wut wax foo xamante ni amu fa xaju fa te lii Ousmane Sonko wax man ji souscrit à mille pour cent parce que jàpp naa ni amul kenn ku am sañ-sañ di intervenir ci nit ki façon bu mu bëggee sol yére bu nekkee Pape Makhtar dafa bëgg sol yi euh, lakostam mais am na droit sol ko xale yu jigéen bu nekkee moom dafa bëgg jël kol tekk ci boppam mais am na droit def ko tey fii ñaata xale yu jigéen ñoo jël di jël ay kol di ko teg seen bopp est-ce que dafa tax ñu doon ay ibaadu non dañuy nuy ay xale yu góor dañuy def lii ak la donc loolu amul benn rapport choix la choix vestimentaire u nit la te nit nag dafa am liberté yoo xamante ni yu fondamental la kenn munu ci laal benn muy liberté de pensée liberté de parole ak liberté di choisir yow ban façon ngay solee yëre ak nan ngay solee yëre loolu ku ci bëgg intervenir il va falloir que ñu xoolaat suñu constitution bi nga xamante ni titre liberté yi daf ñu jox ñun ñu am sañ-sañu nekk ay nit yoo xamante ni ay nit yu libre nañu benn règlement intérieur boo xamante ni dañ ko jël copier ko ca règlement intérieur France mais loolu mënuñu ko imposer ici au Sénégal mi ngi nii institution Saint-Jean d'Arc établissement culturel biculturel français sénégalais ñoom nag bu nekkee dañuy jéem a fexe ba li am France am fii ci Sénégal loolu mënu fi am nga nekk privé nga nekk public ci bokk yam dégg naa ñi naan way nañ jëlee seen doom yi fay dugg ak xaw ma lan ak lan ak lan parce que seen doom yi fay dugg ñoom ñoo fa duggal seen bopp xaw ma lan ak non. mais école comme site euh, comme comme comme comme presse la même bu nekkee privé service public ngay def tey jii Walfadjri dafa am cahier de charge c'est pas parce que privé la que dafay def lu ko neex bis bu wàccee li nga xamante ni moom mooy cahier de charge bi mais dañuy ni tapit signal bi de même façon école aussi dañ lay jox cahier de charge bis boo ci wàccee dañuy nanguwaat li nga xamante ne moom moo tax ba tey jii yow nga mën a jàngale parce que école du ku nekk mooy ñëw taxaw ni da ngay ubbi école di jàngale no dañ la jox réglementation ni la yow nii ak nii ak nii ngay doxalee te réglementation nag bu jiitu bu jiitu jiitu jiitu mooy fexe ba sàmmonteeg suñu constitution munoo nekk nag ci réew boo xamante ni amul fenn fu ñuy teree nit ki mu sol voile nga ni ci biir réew mi da ngay créer ay zone d'exclusion nga ni fii nii territoire France la waxoo dëgg territoire bi fi France am ambassade la te loolu si jamonoy jàmm la bu jamono jàmm amul bu leen neexee ñu leen hey ambassade bii ngeen nekk jóge leen fi donc jël cette question bu ko def question wu entre église ak le gouvernement man je trouve que c'est c'est c'est c'est vraiment euh, di verser ci ay amalgame ak ci ay yenn yoo xamante ni jaru ko te parce que ñun ñëpp ay sénégalais nañu. Sénégal doo xam kan mooy jullit ak kan mooy chrétien ak doo xam yooyu kenn dund ko donc vraiment man sa débat je l'ai pas compris moo tax nag ma ni nit ñi ñoo war a moytu di dugg ci yenn polémique yoo xamante ni ëllëg dafay yàq peut-être li nga xamante ni sénégalais yi ànd nañ si bëgg nañ ko mooy fexe ba ñii ñu fal ñu réussir parce que ñii ñu fal amul je ne pense pas que nit di la ñaanal ñu échouer kooku moom bu ko bu ko bu ko nit sañee nit kooku mérité wul sax doon sénégalais pour ñi mën a échouer nag il faut que ñoom ñu mën a focus sur l'essentiel mais pas à chaque fois ñiy obligé di jéem a xool nan nañuy gérer yenn crise yu ndaw yeeg nan nañuy dellu si waatee def nii ak def naa non nit bu waxee yow jàpp nga ni que nit ni mu waxee nii jaaduwul mais xanaa yow boo koy rectifier nga rectifier ko sax ci ci ci ci ci ci forme bi ngay wax parce que ñëpp xam nañ ni on ne répond jamais à la caricature par la caricature on ne répond jamais à l'insolence par l'arrogance ku def loolu da nga def lu la neex donc pour dire que ni yenn débat yi nga xamante ni ay débat yu inutile la war nañ ko mën a éviter bu baax a baax a baax ci biir réew mi parce que lenn kase moom moo war a doon tey jii suñu préoccupation mooy fexe ba xam alalu askan bi nan nañ ko gérer alalu askan